koy suivre Lutte TV point com ñu ngi leen nuyu bu baax ñoo ngi fii nag jël si ki nga xamante ne moom mooy Garga comme ni ngeen ko amee temps yëpp rek ci ndogu mbër bi nag ñun c'est la première fois ñu jël si mbër ci ndogu mbër mu entraîné avant ndogu dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp ñu fekk fi sa waa écrit waa jàmbaar Wrestling Academy Papa Sow Goro Sock ñoom ñëpp ñoo ngi fi ak ki nga xamante ne moom mooy Papa Gueye Xeer xaw ma mbër la xamoon demee na xaw ma mbër bu yàqu la maa ngi lay nuyu bu baax baax di la ziare bàyyi la nga nuyu mbokk internet waaw Lamine ñu ngi lay ziar di nuyu waa Lutte TV di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan ci à travers Lutte TV ñu ngi leen nuyu di la jox sa wàccuwaay di baalu àq ñëpp ci weeru koor bi nga xam ne moom lañ dugg di ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu suñu borom suñu borom nangu ko ñu ngi leen di baal di leen baalu àq bu baax a baax. gi yaa kaw. waaw ñu ngi sant bu baax alhamdulilah ñu ci kawam. ak ma la gisee ngay entraîné nii di yéeg ci di di sax bi mu ndaw la waaye maa ngi lay gis yaa ngi entraîné entraînement bu intense teg teg gi loolu ak koor gi ndax waxtaan nga ci ak médecin boobu loo xamante ne moo moo la jox moo la jox avant nga def di entraîné sans sans nga lekk. waaw li li may mën a wax mooy xam nga deux séances la ñuy def bu ñu doog a pare dañoo war a dem saal defaat beneen séance suñu grand papa Sow moom yaakaar naa ne kenn xam ko ci caaxaan bu fekkoon lu nekk loolu xam te ni baaxul daf ñuy wax lii baaxul waaye ñoom tàmm nañ ko def quoi du ren lañ ko def bu ñu amee combat bu ñu am combat yëpp avant ndox dañuy ndaw. def benn entraînement après mun entraîné après dem salle. Mhm. waaw. te di nga ko di ko mën comme ni nga koy defee avant koor yaa ngi sentir sa bopp comme ni nga koy sentir avant weer ko. si xam nga koor day xaw a métti tuuti nag day am différence tuuti quoi ak boo wóorul xam nga nit moom bu woorul ak bu wóoree du bokk. Mhm. séance yi ngay xaw a wàññi tuuti rek def renforcement li nga xam ne mënut a ñàkk ci des nga bàyyi ko ba dog ba pare nga dem renforcer waat. Mhm. depuis koor gi commencé ba léegi noonu ngay def wala da ngeen bàyyi ba miin ba seen yaram tàmm koor ngeen koy commencé. non non koor premier jour koor ba ngi ngi entraîné même bu nu wóoru même bu dul combat bi nii ñun am nañ habitude boobu quoi waaw. si xam nañ am ngeen habitude yu entraîné mais. ku weeru koor quoi koor la quoi. bu nu amul combat. avant ndog dañ ko am habitude di ko entraîné. Ah, yàgg nañ koy def ko du lu bees. Ah, kon sa combat taxul ngay ngay ngay entraîné dara ci weeru koor. voilà loolu taxul ñuy entraîné ci weeru koor quoi suñu habitude la dañ koy def sa jour. nag koor gi noo koy dundee boo xëy ban heure ngay tëdd boo yeewoo lan ngay def. non ñun buñ xëyee buñ jullee fajar ba pare presque ci la ñuy tëdd ndax sama gars yi nekk ci teer foofu ñoom fii soo ñuy ñëw ñu gunge leen foofu nekk foofu di lido kaf reer après ñu xëdd julli dem tëddi mi di ñu yeewu concentré ci film yeeg internet bi waaw jaamu yàlla daal. mi di nga yeewu mi di teel. waaw man mi di laay yeewu nag wax <laughs> ba 19h. ah nooy nga mënoo tàmm di nelaw tout bëccëg yëpp mënut faa nga jóg nga mënoo war ba pare bañ a julli quoi nga di wor dëpp bi nga amee ñaata at. moo xàmmee ba léegi daal maa ngi wor weeru gaale nag jaar nañ ci parce que ñun suñu yaay ñoom jàngal koor woor sama yaay da daan def boo bon bi ñu nekk xale bala ngaa da leen nax ni la boo ndogoo boo war a bon ndogu jot man maa lay jox loo ndogo léegi ñun ñëpp dañuy forcer di ndogu yenn saa mu génn nga dem dëpp ci kii bi ndaa yu ndaw yooyu nekk fii sëgg naan ba pare fomp sa gémmañ yooyu boo ñëwee ngeen ko wóor na waaw loolu fan nga ko doon defee ndand fii ndand faal après nag bu nee ba tàmmu koor ci lañ commencé di woor di dem tool di bay di mm-hmm. bàcc gerte yooyu yëpp jaar nañ ci doon nga jàng daara. non daara tuuti rek ah parce que man xam nga Côte d'Ivoire laa juddoo ci internat suñ mu talaayee lan doon dugg di jàng ak yooyu quoi après ñu ñibbi si fii paa bi gaañu mère bi gaañu nga commencé nag xaalis ñafe. ok loolu am na solo la kon ban saar nga ñu mën a tare. ah loo la ñu ne ay julli lan mënuñoo ñàkk. dara inna anzalnahu fi laylatul qadri ma adraka laylatul qadr laylatul qadr xayru min shari tanzalu malaikatu ruuhu fiha bismi rabbika kulli amrin salaamun laa jànge yow daara Côte d'Ivoire rek ah, parce que bi ma ñëwee fii suñu waajur góor dafa teel a làqu bi ma ñëwee sama mbaajeen sax maam say doon na ma proposé waa ni ma kaay jàngi ci daara ji waaye man gisuma woon lu dul wut xaalis parce que boobu situation bi dëgër naa xam nga famille bi baa bi gaañu na maire bi gaañu na ku nekk li nga war a am yaa ko war a wutal sa bopp xam nga faa nga ñafe pour wut loo am. waaw loolu am na solo. léegi nag dem métier mi dem jàngi quoi. métier mi dem am na solo léegi nag nga am combat le 22 mai incha allahu rabbi arène nationale sa diggante ak Mama Lamine combat bi yàgg na waaye yàlla dogal na am ngeen date ba yaakaar naa ni li warloo promoteur bi ak CNG seen combat bi ci combat yu combat préliminaire yëpp. def na ko ñu ñaan yàlla rek fekkee date bi tatal ko ngeen bëre le 22 mai mën nañu mën presque ñëw na fan nga toll instant bi physiquement. waaw ñu ngi ci wàccaay nag am ah, ñu ngi ci wàccaay bu baax di ñaan yàlla lafal ñu cat rek ba le 22 mai yàlla may ñu ndam ci kaw Maama Lamine li may wax rek di woo sama supporteur yëpp parce que combat bi combat bu ma soxla la bu ma bëgg mobilisation la parce que ci terrain bi kon war nañoo wane beneen xar kanam daal di woo waa parcelle 1 ba 26 di woo sama waa dëkk. waa Ndanda Fall Kajoor. léegi léegi fan nga toll ci wàccaay. ñu ngi ciy wàccaay non ñu ngi ci wàccaay bu baax waaye dama bëgg ci wàllu mobilisation bi dama ci bëgg a wax. waaw dama bëgg waaw dama jàpp ci bu baax ñu mobiliser xam nga ñëpp ñëw. ñu duy stade bi ba fees ñu bëreeg Mama Lamine daan ko jël bu amul benn werante mais instant bi pare nga bu ñu neexoon sax suba ñu mën nañoo bëre ji wax dëgg yàlla. contact bi ak euh, condition physique bi mu ngi fi. waaw condition physique bi mu ngi fi xam nga résistance baa ngi fi puissance mu ngi fi. melo na lu jël poids diis sentiroo na xaw nga diis. waaw ah, mën na mën ngeen gis loolu ah, xam nga koor moom pour nga jël ci poids day xaw a yomb ko parce que li ngay récupérer day bari comprendre nga waaye bu koor bi jeexee bu fekkee lu ñu war a wàññi la bu koor su ñëwee dañ koy wàññi nga jóge ci écurie di dem ci beneen écurie ba pare gëj gëj gëj gëj gëj jóge ci defet combat bi ndax ku nekkul combat boo xam ne kii Garga 2 daf koy waaj ak pression. est-ce que loolu du la yóbbu ci pression. non pas pression parce que man pour man écurie yëpp benn la tey course moto bi ma yor du ci dox samay course koo xam ne ñoo bokk écurie moom ma ko jox Bour Sine maa ngi koy nuyu au moom moo ma jox moto bi ma ciy dox sama course yëpp comprendre nga maa ak booy ñooy bokk di entraîner ci dune bi fee xam nga comme damaa ne ci écurie moo tax ma ñëw def tournant fii entraîner wu na ko waa écurie bi waaye ci dune bi fee laa doon entraîner ak waa Dóor Dóoraat yëpp. loolu daal dafa ci yow benn pression. dafa ci man maa ngi ñoom ñooy bokk di contact guddi gi tamit. Mama Lamine de. non Mama Lamine champion la ndaanaan la maa ngi koy nuyu di ko baal wax ci di ko wax baal da nga ba le 22 passé nga baal xam nga comme ci àq ah, ko baalu tamit moom it di ko jéggal quoi. sa sa waaye que ñu ngi lay poussé yaa ngi sentir sa Papa Sow bu baax sa ginnaaw mu lay poussé vers la victoire comme ni mu koy sentir moom ci Siteu parce que Siteu nee na combat bi Mama Lamine bi moo tax mu jóge États-Unis bi. non Papa Sow moom wax dëgg yàlla lu dañuy def sant ko bu baax parce que waaw su toogee deux jours yu ma gisul sax dafa may woo ndax yaa ngi entraîné li ma ko waxee dara bu ko doyul da ngay gis mu woo coach woo naa Garga mu ngi ñëw entraînement kon ça veut dire que bàyyiwu mm. waaw bu toogee ñaari fan yoo xam ne gisuma rek dafa may woo téléphone. combat bi ñor na Siteu de. waaw ñor na ko waaw loolu du dara man bëriwuma Siteu Mama Lamine laay bëreel benn la doomu ndeyam la ñu bokk ndey ak baay ñoom ñaar. di ko di ñaanal Papa Sow it combat bi mu jël yàlla defal ko ci ndam ñoom ñaari veer rek comme nee ñun ay ndaama la. yu yamul njool. ah yaakaar naa ne du ma ndaama bu gàtt la. mais ndaama nga rek. eh du ma ndaama boo ma doon boo ma doon boo ma doon mettre doo ma kala quatorze gorisé ci ndaamee de. maanaam kenn du la boole ci ndaama. déedéet ndax 1 mètre 80 ku ko xas ba mat ma dootoo nekkatoo ndaama. Ah, ñoom de nee na ay ndaamee gosaas bi. ba le 22 mai incha allah. gis nañ ni dangay bëre xam nga loolu sax doo nee nee nga loolu kese nekku sa bëre mais fës na loolu ci sa bëre zongale ak caxabal moom nag nee na bis boo dof dof loo ba sa tànk bi nga dugal ko ci ñaari diggante tànk bi da koy dem. moom Lamine cabaxal bi lay daw waaye mënul rëcc de dinaa ko lonk de. lonk wéeru lonk faaw ma lonk ko parce que moom ñemewu ko quoi gis naa ne ñemewu ko ndax chaque jour moom lay nekk di wax di wax. loolu mu entraîné mu entraîné résistance bi ah, dinaa ko lonk de. su jaaxaan lay def xool fu mu tëdd. tax loolu war mënu résister loolu. ah yeneen i nit ak mëninam kay. waaw. waaw ah, su ma ko ko résister. mënul résister sa ñax jaaxaan rek lay xool. ko jaxabalee mënu ko résister. mënu ko résister na moytu mu jaaxaan de. mais ci côté xeex bi tamit gis nañ moom tamit mu xeex xeex bu gaaw. moom leen xam naa ko xam naa ne xeexkat la waaye xeexam jaaxaluma ko parce que gis naa ni muy xeexee. da ngay songu si moom day souvent day tëru ñu ko ñu koy songul dóogal ay uppercut. waaw moo tax man la xeexam jaaxal xam nga am na ci loo xam te ne technicien yi laa koy bàyyee ñun dañoo re staff xam nañ ni mu ne xam nañ lu mu tële xeex bi ñuy wax moom mënul taxaw xeex koor à koor moom bu la jàppul du la dóor. Hmm. kon xam na kon xam nañ ko. te nga bëgg jàppante lool. non déggul ma la combat bi dañuy xeex dañuy bëre mënut mënul ñàkk quoi parce que dafa am combat yoo xamante ni dafay ñu nay xale war a wane suñu bopp amateur yi bëgg dañoo war a xeex bëre comme combat bu mel ni combat ama seen Gris Bordeaux xam nga loolu dafa gëj ci te ñun ay xale war nañu mën a bëre bëre bu ngeen xeex xeex bu métti bu ñu xeex ñu bëre ba amateur yi bëgg fa jógee ak jàmm soo su ma ko daanee di teye gars yi wutalaat ko adversaire su ma ko daa su daanee su ma ko daanee du tee gars yi wutal ko adversaire man it ñu wutal ma adversaire bu baax xam ne ñu ma seen a am seen affiche point com ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci diaspora bi di la bëggee ñi nga xamante ne tey dañuy yàkkamti Garga day bëri ñu namoon la leen di wax pour le 22 mai incha allah. waaw di nuyu ñi nga sama xam sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi Italie Espagne Canada États-Unis di leen wax ni nañ jënd code bi seen affiche affiche point com. da wax ni wax dëgg yàlla ñun dañ ci am mbégte parce que yàgg nañ leen ko gis nañ daal li ngeen ciy doxale quoi suñ demee ba yàlla dogal ñu war cee bëre ñu defal ñu perpervue dañuy wax suñ fan si yëpp suñ soppee nañ jàppale promoteur bi du dem jënd code yi ñu bëre daan incha allah. mobilisation nan nga nar ñëwee parce que nag ña ngi ko seqal ñoom ñoom ñoom ñoom moom bu jógee seen waa gox jóg lan ngay wax waa parcelle waa Cambérène Fadia comme ni nga koy waxee ak waa Ndande ba ci waa Côte d'Ivoire sax. waaw Côte d'Ivoire moom duñ ñëw. dañuy ñëw. Ah. maa ngi nuyu Siri Diouk depuis Côte d'Ivoire sama grand frère yi nekk foofu. Ah. ñoom Omar Niang xam nga ab Ablaye Ndioba Ablaye Ndiaye Sidi Ndand maa ngi koy nuyu. di nuyu sama mbokk yi nekk foofu yëpp daal ñoo xam ne sama dëkk la namu naa leen di wax ne ku bëgg a seetaan lamb ji da nga dem seen affiche point comme jënd code seetaan Garga 2 Mama Lamine. Mm-hmm. di woo nag waa Cité Fadia yi nga xam ne fa laa dëkk. ma leen wax ñu mobiliser wu bu baax di woo waa 15 ans waa sas unité 4 unité 3 unité 1 unité 2 parcelle 1 ba 26 maa ngi leen di woo di wax ngeen jàppale seen doom seen rak li ñu woo tamit waa unité 7 parce doole ak waa unité 8 parcelle laal kenn desul di woo nag di sant sama waa kër sama bàjjen maam say sekk maa ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal fanam ak njabootam di nuyu sama grand frère Birame Thiam ah ak soxnaam soxna jaara di sant sama soxna tamit ak sama goro ku ci mel ni sama papa bu Kuntañ Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama goro bu jigéen Aminata Mbaye di ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam yore cëram gis naa daal taxawaay tamit nag sama benn grand bu ñuy wax Maana Gomis dëkk Tëngéej gis naa ni ñuy jàppale maanaa Gomis ah. boroom Tëngéej di ko nuyu di sant nag ñi nga xam ni ñoo ñooñuy jàpp la ci wàllu ñaan ku ci mel ni sëñ Mor Fall Saw xam nga sëñ Saliou Ndiaye maa ngi woo ñëpp di wax ne nañ jàppale seen doom seen rak di nuyu waa Casamance sama mag yi nekk foofu waa Goudomp maa ngi leen di nuyu bu baax gis naa seen taxawaay macha allah mm-hmm. waaw. jërëjëf seetaan ngeen li nga xamante ni moom lañ def ak Garga 2 yëpp daanaka nag émission bi fii lay jeexee ñëw jox ko mu tàgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay mbokkam rek lépp loo xamante ne laaj ñu ko woon mu bokkoo message boo xamante ne laaj ñu ko mu bokkoo lancé ñu bàyyi rek nga nga tàggatoo waale say mbokk ndax yaakaar naa le 22 moom presque ñëw na. waaw Lamine encore ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Lutte TV yëpp di remercier ñi nga xam ne ñooñu doon jàppale parce que tamit mbër dafa metti ci mel ne suñu grand papa Sow gis nga li ngeen fi gis lépp ci ndogu moo ko def. ñaata kilo nga ndogu. non ndiibal rek laa ndogu xam nga man sama lekk bariwul quoi. franc ak góor ñooy lekkat yi. bëgg lekk. non ñoom ñaar moom beneen affaire la. di sant ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ku ci mel ni ministre Néné Tall ñu ngi koy woo ci combat bi di ko wax na ñoo jàpp ci bu baax nu nuyu tamit DG Lonase monsieur Lat Diop ñu ngi koy woo baax di ko wax ni combat bi nag bëgg na mu dugg ci loxoom bu baax a baax. parce que combat yee passé doonoon def ay démarches waaye yàlla dogalul mu sotti waaye bii moom ñu ngi ko ci woo bu baax mu ñëw jàpp ñu di woo ku ci mel ni xadi xadi Xadija Maykoor maire golf ñun tamit ñu ngi koy woo bu baax di ko wax ni ko combat yi mu ñëw ko ci loxom sama grand tamit maa ngi koy woo bu baax maa Ibra jaañ di ko wax ni combat bi combat am la na ci ñëw jàpp bu baax a baax mm-hmm. di woo waa Canada Dame Diouf maa ngi koy woo di wax combat bi combat am la xam nga jàll ba États-Unis du Gaynde ak soxnaam maa ngi koy woo di nuyu tamit sama grand Aline Sow di ko wax combat bi la ci jàpp bu baax a baax di sant nag maam Père Ba am ñu fayam moog Mansour gis nañ seen taxawaayam xam nga ci jàppale bi di ko ñaanal li nga xam ne moom la sumb nii suñu borom defal ko ci réussir totale ak njabootam ñëpp di sant nag. di ki xam ni moo waral ndoguli maam Fatou suñu chéri taxawaay bi rafet na ak njabootam yëpp di ko ñaanal suñu borom defal leen jàmm ak xéewal ak sutura di nuyu nag waa Cité Fadia gi nga xam ne fa laa dëkk léegi nag combat bi seen combat la na ci ñëpp jàpp. waaw na waaj rek ànd ak ay mbokkam ñun ñu ngi waaj ak suñu ànd ak di nuyu samay ndijaay yi ah di leen wax ni combat bi na ci ñëpp jànt jàpp ñu sant Seck ñu sant Ñeng ñu sant Jaw bàyyiwuma kenn di wax na ci ñëpp jàpp waaw. Papa Sow Siteu ko fara. Papa Sow. Hmm. Garga 2 Mama Lamine ah koo faral Garga 2 Mama Lamine. Garga. Ah. kontaan naa ci yow. waaw jërëjëf ma Lamine kontaan ci yow di nuyu sa cameraman Ahmed di wax ni liggéey bi rafet na macha allah. Hmm. jërëjëf di nuyu nag sama gaa yi xam ne ñoom laa àndal ñoom Omar Kébé Youssou Mbaye waaw non moom Omar na toog fii soo ah koy wax de lu ko gars yi di woowee tàng tàng lan <laughs> sekk tàng xol moom la koy gars yi di woowee waaye maa ngi koy nuyu bu baax moom amul benn. su ma yor bagage non ki yor bagage ñëwul Ibou Ndoye ñu ngi koy nuyu daa yor seet nag moo tax temps yi kenn mënu koo gis di ko nuyu di nuyu di nuyu borom sagesse sama grand maanaam Gomis ñu ngi koy nuyu bu baax di wax combat bi combat am la. di nuyu sama doomu ndey nag sama xarit sama goro Tamsir Dieng maa ngi koy nuyu bu baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Cambérène 1 Cambérène 2 da nga xam ni combat bi seen combat la na ci ñëpp jàpp di woo tamit mbawar mbawar yi sama xarit yi ñoom wax dëgg yàlla leen may supporté bu baax di leen woo di woowaatal Ndiaga Mbaye wépp di leen wax ni combat bi seen combaala la jaajëf